ñoom ñu ngi ci liggéey oui oui mais je termine vous êtes qui vous êtes qui vous êtes qui pour m'arrêter non vous êtes qui votre votre carte votre carte ah, votre carte avant de le dire il faut sortir votre carte il faut sortir votre carte non je termine ma communication prêt depuis longtemps. On est prêt depuis longtemps. On termine notre communication. Soit dit, par élégance, il faut Il faut laisser les gens Vous ne pouvez. D'accord. D'accord. Il faut attendre que je termine pour venir. on termine donc donc ce que donc lu ñuy wax mooy li ngeen gis nii mooy tey suñuy rakk suñuy mag suñuy doom ñoo xam ne ñun ñoo bokk benn kër lañ bëgg a jaxase sénégalais yi il faut refuser complètement ce que Macky Sall est en de faire il faut le refuser complètement et ça je pense que li muy def nii di jéem a arrêté euh, ay arrêtel dafa lu neex Sénégal on vous prend en témoin on prend tous les Sénégalais en témoin incha allah et que la chose se